sant yàlla bu baax di julli ci yonentam mu tedd bi di gërëm sunu ñaari waajur di ñaan jàmm ci réew mi di jaalewaat nag njabootu sëriñ Modou Niang di ko jaale sama bopp di ko jaale la monde de la lutte di ko jaale àdduna yépp ndax perte bu mag la doonoon nit ku baax euh, kàddu yi ma mujj joxalanteeg moom ci RFM la émission Malick Thiandoum mu dugg ci ma envoyé SMS Malick Thiandoum ne ma ko nuyul ma Serigne Modou Niang Malick ne ma ni ngeen mel ñaar duma ma du ma du du ma yem ci loolu dama la yoo dugal la keroog ci lañ waxtaan journée bi mujj tëgg su ma juumul Lat Joor la ak Moustique de moo ñu Jackson Jackson moo moo ñu jiite fii tàkkusaan moom moom Serigne Modou Niang moo jiite dama jàpp génn ñu ne ma père jiiteel ma seen ko muy ñëw ma ne ko non li ñu naan dëgg day boot seedeem parce que kii mi ngi ci woon kon moo lay wan ne moom ku baaxoon la ndax lu mu tar tar même bu organisé bu waxtu wi jotee li suñu borom moom da ko koy jox muy perte bu mag boolewul dara ak wax nag ànd ak alternance ba yàlla weddi promoteur yi bi tendance amee ci la toog ruqam farul ak kenn séq ak ñëpp jàmm télévision yi dañ ko daan tooñ moom Serigne Modou Niang tooñ gi mooy day signé ak direct sa programme si chargé nga bañ a def direct bi di ko teg en di différé teewul du ci xuloo du kaas day bàyyi rek dem ci beneen télé kon ku baax dem na ku mel noonu nag royukaay la boole dara dara wax noppi nag ñaar la nit dana noppi ngir maandu nit dana noppi ngir soxor mais sëriñ bi sëriñ moodu noppeem gi maandu la rek ku baax dem na yal na ko yàlla xare aljanna loolu mun mënutoon a ñàkk ndax ginnaaw ba ci lañ jógee démb lañ ko doon saraxal Euh, bés bi mu génn àdduna dellu dellu sigul kon euh, bu loolu ma amee bala ma wax dara damay njëkk ci rek di ko jaale njabootam yépp di ko jaale waa njabootu làmb uh-huh. jërëjëf seede euh, yi am na solo ndax mënul ñàkk kon ni ma ko waxee rek nee naa ne suñu père sëñ Modou Niang moom laa gis seul promoteur boo xamante ne mosul joteeg reporter mosul dàq reporter wax dëgg yàlla mosuñu koo xamal lenn loo xamante ne ay détails ay reporter di ko ñaanal yàlla suuf Touba of ci kaw mais père day ñëw ci li nga xamante ne. waaw damay dolliwaat sëñ Modou ndax xam nga man moom liñ naan tungune du tew ñi natal dem na ci dëj yu bari waye señ Modou ñaan demb la ma sa gis même ñi nga xam ay trafiquant lañ dañ daan jënd ci guiché yi ci mom dem tek ci dara dañu indi seen njaal même kat yi mu señ Modou du leen génne ñom sax dañu indi seen njaal demb mo lay wone mom ku bax la yal nako yalla yàlla jall mm-hmm. euh, fi may ñëwé ak yow muy actualité oblige fan yi gis nañu li gënoon na jafe ci combat mooy combat ñi nga xam ni ñoom ñooy euh, mbër VIP yi la wax ndax gis nañu Modou Lo ak ki nga xamante ni moom mooy euh, comment il s'appelle euh, Boy Niang mu ne combat boo xamante ni ñu ngi koy démarché nan ko gisee combat boobu noonu. muy combat boo xamante ne li fi xew ñëpp xam nañ ko coow li bëri na tekk ji yàgg na mais combat bu mag moo demee noonu pour léeg-léeg taxawal ko dana dana am temps. am na promoteur bu affiché wu ne jox na Modou avance gisaguñ kaw Modou Lo weddi ko kaw euh, Boy ñaar ñi ngi doon xaar ne li ko waral mooy Ama balde seen nawle la di seen frère quatre ans bu yoree avance Modou Lo ba yàlla weddi mu jël beneen combat digganteem ak giri ba tey yàlla ñëw dogalam euh, loolu mënuñ cee jël beneen combat ndax combat royal la Ama defoon espoir yàlla def sottiwul looloo taxoon temps bi bi leen Ama libéré nag ñoom ci lañ na pare nañu pour bëreeg Modou Lo ñi ngi dox nag sotteegul xëy na dina sotti mais daal bu sottee combat bu am solo lay doon ci ñaar ci ñaar ñu ne ba tey ñoom jotaguñu ah. waaw man démb sax gis naa déggoon mu ne wax ñu ngi ci waxtaan daal xalaat nañu ne xëy na dina dinañu dina dinañu jibo am nay prix yu ñu jot a avancé sax mais ginnaaw ba yow mii di liggéey ak caméraman yi seen salaire du ngeen ko wax man it du wax lan lañ fay mbëri mais li leen jot a proposé sax jot naa xam montant bi mais daal li mooy dañuy ñaanal dañ leen di ñaanal rek ñu réussir journée bi euh, bu ko defee dana doon làmb ju neex ndax combat boo xamante ne nag amateur dañ koy xaar te combat bu neex lay doon. Uh-huh. beneen bi mooy Lac de gis nañ ni euh, Permax structure bu nekk mooy euh, structure Thialis bi ñu gis ni Permax en même temps muy Leewtoo Leewtoo production ah. en même temps moom mooy manager Siteu ñu gis Siteu ak Lac de dañ ne combat boobu taxaw na. yéen éclaircissement ngay ne waxuñu en tant que manager mais en tant que ki nga xam te ni moom moo bokk ci structure l'autoproduction non damay wax ci casquette yëpp parce que taxaw bi su ma ne taxaw na di nga xam ne taxaw na su ma ne taxawul di nga xam ne taxawul mais li wértoor mooy euh, Thialis mi ngi démarché euh, xëy na li ci des pour mu taxaw bëriwul am na beneen promoteur boo xam ne dafa nëbbu boppam mais mi ngi wax te it nag euh, moom it waxam sori na

ndax taxaw na wala taxawul parce que mbeur mu ci ne da nga xam ci estafam kenn wala nga xam ménage mais profito rek bind loolu dafa xawa doy war euh buñ sama mosoon daal ñu bàyyi bam taxaw nga dog ne taxaw na ndax ben bo ne taxaw na euh, man nga gàllankoor benen promoteur bu ci xelam neewon mu bu ko dox benen bi man nga gàllankoor mbeur mi ci ben côté ndax serigne yi koy ñaanal tem ñu nekk lamb ji da taxaw mu yo xaliss bi di neub yooyu yëpp ay risque la ñuy def yoo xamante ni ba par bu dul dara sax ngay wax dëgg nag di informer juste et vrai yooyu dafa jar di bàyyi xel dañ koy dolli rek ci ci ci ci ci liggéey bi ne yéen ñu ko gën a xam ñu kombabi combat bi bu dee ci camp de Lac de Guiers ñoom joxe nañ li nga xamante ne moom seen kàddu mais quand c'est affaire euh, cachet moom moo xaw a téye combat bi est-ce que tamit euh, bëreeg Lac de Guiers ak Lac de Guiers monument bi bu nekk ak Lac de Guiers fi toll est-ce que yéen jar na ngeen di xool affaire ak ci côté bi. yi nga a tudd muy ah muy Modou ak Boy Niang ba ci yeneen mbër ku ko ëpp lu lay topp amul dañ kase yooyu ñuy laaj Siteu laaju ko kon mo lay wane li laaj na. waaw dama lay wax rek ne la mbër amul mbër ci Sénégal bopp mbooloo Siteu du ma ne moo fi ëpp mbooloo waaye ku ko ëpp moo ëpp mbooloo te ñoom kase yooyu ñu laaj Siteu laaju ko. mais est-ce que nekkul tamit ci mbooloo bi ngeen a focaliser wu tamit ba bëgg non làmb léegi boo amul mbooloo sax duñu la tëgg gis nga làmb yi dangay gis mbër mu ñëw daan ca suba ga ñu dox ki daanu ndax mbooloo moomu indi dafa yàq sax charme làmb ci benn côté da ngay seet ay combat yu mag bu njëkk ba dañ daan dale ci suuf jëm ci kaw mbër yu ndaw yi tuuti yor gabar yu ndaw yi ñooy bëre nga bëre quatrième combat bëre troisième bëre deuxième dem grand combat mais léegi da ngay gis koo xam ne matul 2 kilos 500 ñu taf ko ci grand combat bi ndax mbooloom te loolu daawul am loolu nag lu xew la ndax euh, làmb ji la sponsor yi daw promoteur yi duñ tëgg pour di perte moo tax ko am mbooloo li ci ëpp la ñuy la ñuy tëgg bu njëkk ba palmarès mooy boole ay mbër. mais légui dañuy sét rek ku am mbolo dañ lay fay ji nga ji nga combat préliminaire combat yu ndaw di bëre ay 800 ba ci 500000 nga gis ponkol mu mat ubale lamb def lu ne du mën am 200000 ci lamb ji kon actualité la lu xew lo xew la phénomène lo ba xew ci lamb mhm. kon ñu naan euh, affaire bi Siteu dafa dem ba beneen saa xam ne de guerre mi ma mu doon wax ak bi ba mu xoolee xaw a différence dafa xaw commencer commencé quoi. xaw saxet quoi. non yow loolu sa wax la. non sama wax permettre. manam Siteu at mi mu juddu ragal jiddu wu ci. ah kon déggoo ma de kon déggoo ma de eh. si koy téye sax hmm. est-ce que xam nga bi mu lukki koo ci maalaw seeraas xam nga ca la jóg Iba Mar ndax da koo tëj estaat ba fees mu duy ko ba ñeneen amuñ fuñ toog est-ce que xam nga ba mu fa jógee ca guddi ga dafa dem 2S am promoteur bu doon wax mook tafaatin ma ne ko mukk teel na waaw pour wax wax la rek moom moom moom fitam kon bu ñemewutoon la de guerre du ci sax wax du yee yàbbi ci non de kon déggoo li ma la wax waaye MMA gën a métti dama koy yërëm maag yaayam ne ko baal MMA bi mu ne nak da koo bëgg passion la foog mu def ko loolu wax bu yàqu la say kàddu la mais ko du dem du dem non samay kàddu non say kàddu non gars yi ma yóbbante oxo wala yow yow mais Gris Bordeaux taxaw na tamit ne pare woon na pour may chance lan moo tax dama ne giri ñun bëgg nañ ko nyun, may ñun ku ñu may chance ren sax looloo xew nag may chance daa xew de bu xale doon bàkku dañ ko war fent sax daa xew non déggoo li ma la wax problème bi mooy règlement dafa wàcc ci koom te bugguñu mu tënkuñu di ñu salfaañe parce que sous contrat la ne ñu xamale ne foog Ama Baldé euh, fii ak trois mois su indiwul guérison ci la règlement di doga may Gris mu jël beneen avance waa léegi boo jëlee avance su Gris di waaj nga dem une semaine wala deux semaines Ama Baldé dugal guérison nooy def man duma ma cuune de làmb xam naa ci tuuti xaw ma lépp waaye xam naa ci tuuti te bëgguma tënku ci réglement su boobaa da ngay téye xale bi te préparer dafay am solo ci nga xam ne date bi wala bés bi ci ngay bëri mooy gën a yombal sa préparation moo tax bëgguma surux ci côté boobu ma seet koo xamante ne amul benn contrat nekkul su contrat ñu wax ak moom signe bu ñuy signé ba kooku libre mais sun xel mi ngi ci Gris Bordeaux comme bëri VIP yu mag yëpp nag.